salaamaaleykum mbok internetu Dak medina ñing leen di nuyu di leen bëggee di leen ziar tey nag dañu ñëwaat seen Dak artisanat tey ñu am ci gan yu mag waa gaaru Teranga yi nga xam ne benn GIE la bu nekk Gueule Tapée xam naa da leen ni bàyyi rek ñu présenté wu presse ñu ngi leen nuyu. waaw di leen nuyu di leen ziar waa Dak medina man la Cheikh Sadibou Guèye di président GIE di couturier et stylistes gaaru Teranga. Mhm. waa sëñ bi ñu ngi leen nuyu. ñu leen di fay bu baax waa Dak medina ak euh, mbokk internet yëpp man la Doudou commissaire au compte GIE aussi président commission foire et exposition vente bu GIE merci beaucoup Guida bi ñu la nuyoo xanaa ñu commencé waxtaan bi rek ci président bi président dañu bëggoon euh, nga wax ñu lañ mooy Gaalu Teranga nga présenté Gaalu Teranga. waaw su ma doon e Teranga. Mhm. E Teranga comme ni ma c'est un GIE qui regroupe les couturiers.

li naan mbooloo mooy doole. Mhm. donc dans euh, terrain terrain ne on s'est dit que division bi. Mhm. division bi kenn ku si nekk toog sa atelier di xaar. c'est mhm. un peu du nekk ben affaire bu du genre mouvement type de ànd. donc on s'est dit que dañuy retrouver wu di organiser ay événements yu mel ay formations aussi tab di ay formations mais aussi. Nous avons d'habitude de wax formation. Mhm. mais chef d'atelier y a renforcement de capacité par rapport au chef d'atelier mais des formations pour les enfants madame apprentis mais formation il faut lañ ci formation il faut ngi si avancé bu mhm. parce que nous avons des formations formation euh, par rapport à une euh, formation qui mhm. la doon africaine.

gis nañ cahier de charge bi. mais bi ñu gisee cahier de charge bi ñun on s'est dit que li nekk si cahier de charge bi ñu ko respecter. pourquoi parce que on s'est dit que euh, cahier de charge bi dafa compliqué compliqué boo xamante ne par exemple. ñu jox la benn mille cinq cent pièces wala trois mille pièces. Mhm. nga jël liggéey ba tas ko soo ko boolee du ñoroo donc ñun gaalu teranga on s' dit que avant ñu jël toniscale ak yooyu noonu dañu am benn espace li ñu tuddee maison de couture. Mhm. pour mën a jël si toniscale ak yooyu. ma dégg sa waxtaan tamit euh, costume africain yi ngeen di defar mu nekk mode bu doy waar lëmbe réew mi bu le présent woowee mun nga ko sol mu nekk tamit lo xamni lepp sur mesure lañ koy jëlé ba xam tamit yeen da ngeen koy jàngalé wala nu mu démé non waaw costume costume africaine boobu noonu. ñun bi ñu koy def. Mhm. benn professeur bu dëkk à la gueule mu koy mhm. nuyu de passage mu tudd monsieur Pathé Guèye. Pathé Guèye. Euh, mu nekk responsable au niveau de la FENAF. Mhm. mu fay mu nekk fa représentant euh, responsable formation moom moo ñu ko defaloon. Euh, forma mu ñu ko defaloon CFA centre de formation artisanale. bi ñu ko defalee.

da ngay gis maas yi weng maas yi euh, doy waar daal loolu secret bi lan la tamit. waa secret bi jàng la avant hmm. tout. parce que loo jàngul doo ko mën a tari. parce que booy xool tamit foofu moo gën a métti ci costume africain. Ah, ah, yi. foofu foofu lépp nekk. foofu moom boo ko foosee rek ñaw bi yàqu na. parce que dafa am manche bi fu mu wax a tegu. Uh-huh. manche bi li ñu naan da gis ñoo xam ne dañ koy sol ñun suñu teeg ma.

Euh, ban mission mooy mission Gaal Teranga xam nga ñaw lañ tool jamono boo xamante ni ñaw fii ci senegal dañu war a fexe ñaw àgg foo xamante ni dootul rek euh, nga soxla soxla dara mbubb dem ci teer wu ci tissu yi jënd mesuré dagg ñaw toog xaar rendez-vous dafa war a dépassé foofu. moo tax bokk nañ ci formation yi ñu doon def mooy di formation di fexe euh, dugg ci catégorie ñaw mm-hmm. fexe ba nga xamante tey ji yow tey ji soo bëggee ñaw tey ji exemple mm-hmm. boo ñëwee fu mel ni showroom Galou Téranga t'as pas besoin que ñu lay jël mesure wala nangam non tey bu ne tey sama taille exemple maa def taille 42 ci mm-hmm. chemise bu ñu di fekk taille 42 chemise mu pare boo ne dama bëgg taille euh, nangam ci pantalon di nga fa fekk mu pare donc il faut ñu il ñu def ay jéego fexe ba euh, adduna bi moderniser. mais jéego yi jéego yi naka ngeen koy defee. jéego yi li ci njëkk. moy mhm. la formation d'abord. formation bi surtout formation bi nak on a un grand professeur bu ñuy wax Paté Gueye. Mhm. Sénégal ñëpp xam ko mu nekk koo xamante ni yàlla dimbali na ko am na xam-xam nekk un diplômé de l' académie internationale des coupes de Paris kooku mi ngi dëkk suñu gox. am yéwén nag baax loolu nag diñu ko diñu ko jox comme il faut donc ci moom la ñuy commencé d' abord avec les formations donc formation rek moo ñu mën a indi ci xam-xam boobu.

ñu ngi taxawaal ñu ma leen a jàngal métier nag ci diir boo xamante ne nag diir bu gàtt boo xamante ne buñ ci jógee lu mu gàtt gàtt dinañ am lu ñu mën ba nga xam ne bi ñu ko appliqué rek ñu mën a jariñu ba lu ñu soxla di taalal loxo kenn. mais pourquoi pas tamit duggoo leen fi nga xam ni euh, mooy Gueule Tapée Fass Colobane parce que gis nañ ay maîtres tailleurs yoo xam ni pratiquement ñawatuñu. mais seen loxo coupe bi ma nga fa pourquoi pas doo leen seet ci ñooñu tamit pour dugal leen ci formation waaw xam nga liggéey bi nekk ci Galou Téranga dafa yaatu yaatu boo xamante ni xëy na mm-hmm. ci un début ci euh, GIE boo xamante ni euh, deux ans la am am la amagum luguloo mm-hmm. daj lépp mais métiers yi ngay wax noonu vraiment xam nañu leen ndax nag ñun tamit nag fii la ñu jàngalee mm-hmm. fii la ñuy formé tey boo waxee lu mel ni mbéng tailleur

boo xamante ni dafa doon dox ci partenariat. Mhm. entre le GIE ak suñu autorité locale. ak mhm. suñu autorité étatique. étatique fexe indi un résultat positif. Mhm. moom la ñuy wax ci programme xale yi. parce que programme xale nag c' un peu compliqué c' pas aussi facile qu' on mais dafa laaj. Euh, am ñu dugal seen loxo. Ah, borom doole dugal seen loxo si ñi nga xamante ni métier bi la ñu yor. moyen new fi ñu ngi jàpp ci su ko defee ñu mën a ñu a ñu mën ci dem quoi. ñu mën ci kon dañuy demaat ci président GIE bi euh, nan ngay def pour adhérer ci pour bokk ci ak kan moo ci war a bokk. waaw ki si boog bokk xam nga GIE yëpp au départ mu ngi mhm. tuddoon GIE euh, des couturiers et stylistes de la Gueule Tapée. Mhm. mu am suñu mbokk yi dëkk Fann Hock. Mhm. dëkk Médina dëkk fas ne dañ bëgg a bokk si GIE bi. par la suite ñu jël turu gaalu teranga mu doon gaal boo xamante ne ñëpp siy xaj. waaw gaal moom ñëpp ciy dugg. voilà exécutif bi foofu la sosoo. Euh, pour adhérer si GIE bi. carte de membre 1000 francs la mhm. carte de membre 1000 francs lañ laaj bokk nga si GIE bi. na ci mhm. mais Galou Téranga réalisation la defagul yoo nga xam ne nit ñi mun nañ ci teg seen bët. Wow, Galou bi assemblée générale. Mhm. Euh, ñu ko euh, le 21 mars 2021. Nous avons fait assemblée générale premier objectif nous avons ngi une formation en gestion d'atelier gestion d'atelier Nous avons formation une formation pour jàngee lu bëri. Mhm. si leen xamee bi. Mhm. poche atelier mhm. chef d'entreprise il bi dafa un salaire comme personnel qui mu un salaire. surtout. donc on a texte après Korité. def benn expo et vente tuddee woon comme mode qualité.

ba si yëre yi donc euh, modèle dal daal wona woon bo bëri boo lépp képp ku fa ñëw incha allah ko fekk modèle yépp ben ko fekk modèle yépp voilà donc euh, pour si réalisation aussi tamit. Mhm. euh si 2021 aussi tamit si lañ defoon mi li doon wax légui nii renforcement de capacité si costume africaine boobu mhm. euh ñuy jëm nak si suñu sixième programme. 6 sixième programme en 18 mois.

l'artisanat et l'emploi des jeunes. Des jeunes. parce que euh, dañoo gis ne. Mhm. jamono juñ toll nii manque d'emploi bi am ci dëkk bi. Mhm. artisanat kese moo ko mën couvrir. moko mëna couvrir dëgg la. ñu mel ni mhm. li nga ñu def ni yéen a lancé les artistes. artisanat ñu ñi nga xam ay couturier leen. ba si suñu gestion d'atelier atelier un comptable donc mu ngi milieu photographe les shooting. Mhm. mu donc artisanat il y a boo xamante si a des bari na mhm. ku ni tamit euh, gis nit ñi bokku ñu jikko. Mhm. yan difficulté dund ci e bon lolu lolu difficulté difficulté bon xam nga ku nek amna tempérament dañ gérer mais difficulté yi ñuy dund si biir GIE bi ñu si bëri li ñuy xaar gisaguñ ko. gisaguñ ko muy financement. lancer appel rek. ni ngi lay waaw di lancer un appel suñu autorité yi. Mm-hmm. Mm-hmm. au niveau de la mairie. de Tapée Fass Colobane. au niveau de la mairie de Medinan, au niveau de la mairie Fann Amitié Point E. ndaxte Gallu Téranga loolu la ëmbagum jamono ñu toll nii. Mm-hmm. ñu ngi woo monsieur le maire yooyu noonu ñu jàppale le terrain parce que soxla nañ ko tey dafa nekk métier boo xam dafa fiir amul avons mm-hmm. des fois am nous avons fait xam qui nous ñu woo nous lañ nous dem le ñoo nous sama atelier. di outil c'est un peu difficile. mu am mm-hmm. atelier dem mais amaguñu ba des résultats positifs. donc encore une fois di lancer. Mm-hmm.

wala trois quatrième édition bi. ñu koy ci ñu bi quartier. donc il est temps ñu génn il est temps ngeen génn ko. Mhm. damay jox commissaire au compte rek ngeen wax ci bis bu mag bi ñëw. waaw bu ma ko mayee damay jël saal tout rek ci ben question. acca acca acca posé muy le projet à long terme. Mhm. bu Gaal Teranga. Euh, si projet à long terme bokku na ci. Mhm. bëgg nañu une école de formation fi ci suñu gox. tax nak li fi nekk ci ay bam xam-xam di yëngatu ci walu ñaw. coupe vraiment machallah bari na lool te kenn ku ci nekk ci ñoom pare nga pour xam-xam bi la yàlla jox nga jëlee ko fii ci mag yi. Mhm. mën ko jàlle ci xale yi. te tey jii vraiment xale yi taxawaal dafa bari il faut une école de formation de coupe ak couture. Mhm. boo xamante ni fii lay nekk suñu gox bi ñu jël xale yi yi taxawaalu dugal leen ci. loolu nag suñu moyen may ñu ko. c'est mhm. un projet à long terme. long terme donc loolu ñu ngi ci woo autorités yi yëpp. notre ministère de la culture notre directeur de l'artisanat woo aussi notre nos

Euh, loo fi jàlle dina jàll. dina jàll waaw li may laaj nag. Euh, muy seen bis bi showroom bi laaj showroom Galou laaj nga laaj bu am solo. Mhm. mooy yan xeetu ñëw moo nekk ci showroom Galou Téranga. Galou Téranga showroom Galou Téranga damay wax ne melting pot la. Mhm. boo fa ñëwee da ngay fekk plus de cent vingt cinq tailleur yu dajaloo ku ci nekk di ñaw lu wuti ak li sa morom di ñaw. Mhm. Ah, di ko exposer ci benn place donc lieu de rendez boo xamante ni bépp xeetu ñaw bu nit bëgg. ah boo fa ñëwee di nga ko fekk. est que mun nga ñu sital ñëw yi tamit. bari na boo fa ñëwee si ñëw jigéen. ba mhm. fekk lu moderne. ah lu mel ni euh, pantalon jigéen. jigéen chemise jigéen. Ah, di nga fekk lu mel ni salopette yi. Mhm. Ah, macha allah jamono les robes ah taille basse lépp nga fa. boo ñëwee ci góor ñi commencé ci costume africain. Mhm. costume classique ah chemise. ah suñu chemise panafricaine laa mën a wax. tey jii panafricaine nga xamante ni euh, bu ngeen fi ñëwee dañ la wan ci modèle yi ah di nga ko fekk. showroom ba boo fa ñëwee incha allah bëgg nañu sax ak ak média. semis semis bi nga sol mooy bon. mais bii bii nii bii nii mun naa xam modèle panafricaine la. parce que non bii bii moom nga ñëwal ma ci bii rafet na macha yu dàq yi moo fa nekk. bi yaa jël la pagne tissé bi nga xamante ni suñu tisserand yi. pagne bi oui. ñoo ko ràbb. macha allah suñu tisserand tisserand yi ne fi ñoo ko ràbb. ma boole ko ak ak tissu man koo ñaw génne ko donc am na solo di fekk encore yeneen modèle yoo xamante ni vraiment yaatu na trop macha allah. macha allah macha allah incha allah le showroom Galou Téranga. boo mhm. fa di nga fa euh, un mini défilé. mini défilé bëgg nañ ci au moins waa Dak maintenant surtout. Mhm. ñu jàpp ci bu baax ba ñu ko fa créer ci les soirs incha allah. loolu moom dañ ci jàpp bu baax. ngeen ñëw xool. Mhm. li gars yi def vraiment li mu àndal ci xarañte. Mhm. incha allah di nga ko fekk bu soobee yàlla. waaw léegi pro nga ñëw ci programme bi nga xam ni bis bu mag bi c'est le 15 décembre ba 31 décembre. mu nekk 15 jours yoo xamante ni exposition la vente la mais aussi am na ay thèmes. am na ay débat yu fa am yoo xamante ni ay invité ñoo fay ñëw. Mhm. ñu waxtaan nag parce que nag. Euh, thème yi nañ xam ban la. bi mooy le président wax léegi c' est face à face euh, à l' des jeunes. des jeunes donc artisanat bi. dafa war a dafa war a mën a engloutir bu baax. Mhm. Ah, jeunes yi nga xam te ñu ci au chômage moo xam nga am métier la wala nga ñàkk métier. mooy thème bi ñu xool naka lañ koy tojee. Mhm. woo ci aussi borom xam-xam yi nga xam te xam nañ ko baax mën ci wax. Mhm. ñu ñëw teew fa ku mel la ministre incha allah dañ ci woo. ci woo la détenu ñu indi seen i programme ñoom bu ñu am ci thème bi. bu ko defee ci cohésion ci waxtaan. dañu mën a am solution boo xamante ne peut-être buñ ci tegoo rek. liñ gën a mën a xeex le sous-emploi incha allah fii ci suñu gox bi. waaw léegi gis nañu góor ñi ñu ngi leen di kereel euh, coupe africain yi mais est que xel yéen a ngi préparé tamit pour suñu jigéen ñi liggéey ingénieurs yi. waaw alhamdulilah loolu moom commencé nañ ko ci Galou Téranga. Mhm. ndax Galou Téranga boo fa ñëwee. di fa fekk coupe ak style yoo xamante ni ci création la ko teg. moo tax mhm. ma boo ñëwee na défilé yu fa am yoo xamante ni incha allah bi nga xamante ni. Mhm. di nga fekk yoo xamante ni. Euh, ni ñu ko liggéeyee c'est purement africain naa jox benn exemple. Gantelaang mhm. mi ngi préparé une formation en batik. en batik ba chef d'atelier ñu jàngal leen batik. Mhm. xam le batik c'est purement africain. ah su boobaa aussi boo batik ba pare fo nga créer ñaw ko donc loolu moom ci am xel ñaar incha allah ñu ngi invité ñëpp da ngeen ñëw bu ngeen ñëwee. Mhm. ngeen fekk création yoo xamante ne da lay wan ne lii yoon la boo xamante ni euh, waa Galteranga tegu nañu fa pour lan pour essayer indi tuuti changement ci style jigéen ñi comme ni ñu indee changement ci style góor ba nga xamante ji dina nek tradi moderne. am ko meuna sol dem ci bureau. dem liguey kay sans aucune difficulté. merci beaucoup legui dañuy dem ci président rek comme temps bi daf ñu tënk président lan ngay lokk ci lolu rek lo ci yok waaw limay yok ce par rapport à sa question bi. Mhm. xam nga abima parfois on peut dire que définir la personne. Mhm. parfois nit ki na ngay gis nit ki mu solo mais di nga xam ki ni ban genre nit la. par rapport ak ni mu solo. surtout. aussi tamit dafay définir milieu bi ngay fréquenter. Mhm comme bureaucrate bi ki nga xam dafa nekk sur le terrain. sur le terrain dafay définir si solom. Mhm. donc euh, mu doon loo xamante ne li naan mode léegi benn copie-coller la mën nañ jël ko tout style européenne style africaine buñ ko cumuler rek dinañ am li nga xamante ne style bi nga xamante ne nit ki moom la bëgg. après si looy tëjee rek ak looy ban appel ngay lancer waaw appel bi di ñaan ñëpp Gueule Tapée Médina Fann au niveau de la population. nous mhm. teew aussi événement bi té événement bu am solo la képp ku fa teew di nga gis wala di nga gis style habillement bi nga xamante yow mom nga bëgg di nga ko fekk mais aussi di lancer un appel suñu autorités yi. Mhm. les trois mairies yi nga xamante ñoo téye gaalu teranga muy Gueule face, Fass Colobane medina euh, Fann Amitié Point e. ñu ngi woo maire yooyu noonu ñu jàppale si événement bi ndaxte ñoom ñooy suñu autorité. ñoom ñoom suñu bët bu ñu réussiree ñoom la bu ñu échecee ñoom la encore une fois di leen lancer un appel ñu jàppale si événement bi nii. jërëjëf commissaire Konte waaw remerciement laay tëjee rek euh, ndax gaal teranga euh, dafa am borom xam-xam yoo xam te ne ñoo ko ngànk mm-hmm. ku mel nii le grand fara ñu ko wax Demba Diop. Mbaa ah Mbaa. vraiment mu nekk koo xamante ni lii initiative am la jàpp na ci bu baax ci xalaat yi xam-xamam la ñuy doxee ñu remercier aussi ku mel ni le professeur Pathé Gueye vraiment mu nekk koo xamante ni disponibilité si facilité bu mu am ci tégal ñu ci formation Je remercie aussi Moustapha Diop nekk Gueule tapé vraiment ci euh, côté logistique vraiment amu ci dara lu ñu ci bàyyi lu ñu soxla rek taxé tek suñu loxo japp ñu ci baax baax mais aussi mon tëj je remercie ñu suñu maire yépp plus mhm. précisément monsieur euh, le maire de la commune de la Fass Colobane mhm. Abdou Aziz Pay vraiment ci disponibilité qui euh, ci ci ni vraiment toutes nos relations vis-à-vis des signes soxla suñu bëgg-bëgg jógee nag aussi ñu ngi remercier nag euh, waa Dak Médina mm-hmm. ndax vraiment Dak Médina seen liggéey gis nañu ko macha allah am na solo ah di ñaan yàlla rek yàlla gën a yaatal gën a yokk mën-mën bi gën a yokk koom gi gën a yokk doole bi ba ni ngeen taxawalee di xeexal seen gox di xeexal artisanat mm-hmm. mu jëm ci kaw ci kanam incha allah yàlla na ko yàlla def merci beaucoup kon def naa lii la leen indiloon seen émission Dak Artisanat ñu ànd ceeg nag euh, GIE bu mag bu nekk Gueule Tapée muy Gare Teranga ñoom nag wax nañ seen mbébét am na lu ñu bëgg a préparer mais ñoom seen doole mayu leen ko muy école yoo xam ni école formation la pour jàppale ndaw yi nga xam ni ñoom ñooy chemin pour ñu ñëw liggéey mais nag ñoom seen doole yeggul foofu. lancé nañ appel nag pour maire yi nekk fii ku mel ni Abdou Aziz Paye Pala Samb ku ci mel ni tamit monsieur le maire Bamba Fall ngeen ñëw jàpp ci rek ci gaaru Teranga kon du ma bàyyi te gërëm gi nga xam ni mooy sama caméraman bi l'infatigable bu Malick. Ba ak euh, Malick saw ak Lamine Koli ak président maa ngi leen di gërëm di leen sant xanaa ngeen di seetaan suñu émission rek tous les mardis Dak Artisanat xam naa ba beneen yoon jaa ngeen jëf.